mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yaakaar naa ki ngeen jàkkaarloo nag ci làmb duñ ko présenté ndax li tax mooy yaakaar naa ku xam Fass xam mbay gi ba tey xam nga Alaaji Papa Dieng mu nekk tamit nit bi nga xam ne yaakaar naa ñëpp dañ koy déglu ci rajo Sud FM ak émission bu am solo bi mu fay def par leen di ci wàllu wàllum sport papa maa ngi nuyu di la ziar di la ñaanal tamit gudd fan ak wér di ko ñaanal bépp doomu aadama. maa ngi fay bu baax di la gërëm ci maanaam bi ñu war man ak yow. di la ñaanal tamit euh, yàlla defal la jàmm te it li ngay liggéey yàlla ci yàlla def jàmm kon fu mu nekk yow lay déglu. dafa am loo xam ne ni tey ci làmb dañ ko gis wala mu arriver ci boo xam ne xam nga ko muy Fass wala nga bokk ci ñi ko sanc muy diggante Papa Sow ak écrit Fass bu ñu xëy ñu ne dàq nañ ko biir écrit yow yaakaar naa ne écrit bokk nga ci ñi ko taxawal wala ñi ko téye mm-hmm. loolu yëg nga ko bi nga ko yëgee ban réaction la ci Alaaji Papa Dieng am. réaction bi mu ci am mooy d'abord euh, métti na ma waxtaan naa ci ak papam muy Ali Sow ndax euh, bi nga xam ne mbéy gi daf daan bëri man ak moom ci encadrement bi la ñu bokkoon ñu doon def ay réunion ensemble biñ ci waxtaanee man ak moom it reconnaître na ni papa am na fu mu juume ndax këyit bi ñu ko jox tontu bi mu koy tontu waroon na waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne ñooy ay waajuram u ñu ko yore mais papa dafa def yi fu xale dañ ko jox këyit gi rek mu tontu sans xam li nekk ci biir këyit gi ndax këyit gi dafa am lu ñu ci def wala comme li nga wax dafa xawoon compliqué tuuti papa nekk Fass nekk tamit parcelle gis nga bëre bi mu bëre amaa Ama Baldé keroog bi muy ñëw moitié bi waa fas la moitié bi waa Rock Énergie la xam nga c'est un pour des adversaires ndax am na ay mbër yu nekk Fass yu ci mel ni Gris Bordeaux yoo xam ni bëri nañu ak Modou gis nga bi Gris Bordeaux di bëree ak mootloo sax papa def ni pour beñ ñu xalaatal ko lu ñaaw comme lu ñu def Balla Diouf il préfère se retenir xam c'est un peu compliqué te làmb dafa séexlu làmb dafa am yoo xam ni dalal xel. ndax affaire gàllaaj la mais nag comme que papa fa la dëkk fa la juddoo fa lañ ko ngéntee parce que papa ñu ngi ko ngéntee fi arène sénégalaise nekkoon ginnaaw cinéma bi ci biir kër gi foofu lañ ko ngéntee waaw te biñ ko ngéntee keroog tamit ñoom béy gi ñëpp nga fa woon kon lu mel ni bu amee metti na mais comme li ma la expliqué rek dafa loo xam ni problème de famille la nañ ko réglé ci biir famille bi xalaatuma ay nit extérieur ñëw di ko réglé waxtaan naa ci ak papaam gisaguma waa Fass ndax Malick Guèye dinaa ko gis Mbaye Guèye xaw nañ nga ci gisante mais lu ma ci mën dinaa ko ci def mais bul fàtte tamit ni ma la wax c'est un peu compliqué mënul nekk ci ñaari écurie loolu loolu mënul nekk donc dinaa ci def ay effort ndax papa sama doom la papa la may wax papa ji tamit daf ma ko dénk lu mel nii bu amee ñu àddaan àndandoo di waxtaanandoo di nasandoo di demandoo làmb ja taamu mbéy gi tey jii bien que xaw nañu retiré wu tuuti bu mel ni lu mel ni bu amee ñu ngi ciy dox man maa ngi ciy dox maa ciy waxtaan ak papaam. ñu ngi ñu ngi seet naka la ñuy def ba papaam ni ma dinañ daje man ak yow ak Mbaye Guèye ak ñoom Malick ak ñoom Abbas ñu toog waxtaan léegi loolu laay xaar parce que tamit nga mbir su fekkee da nga bokk tamit boolewuñ la ci doo ci duggee noonu mais comme que papaam waxtaan na ci ak man maa ngi xaar réaction papaam pour ñu commencer di dox ay jéego yoo xam ne dina mën di déggoo. Mhm. kon daal yaakaar nga ne kon yow papa war na mën a dellu si waat doon nekkaat ci biir écrit bi. non xam nga àddina doon na lii lii mënul am àddina dafa doy waar dafa tëradi euh, lii am ëllëg yàlla rek ko xam du ma ni mukk doot mënatuñu juboo du ma ni dañuy tàggoo mais li ma la wax rek man li ma ci mën dinaa ko ci def pour mu rafet mais nag bul fàtte wax bi ma la wax ca départ ba dama la benn mbër mënul nekk ci diggante ñaari écurie mais bu dëkkee parcelle tamit waa parcelle di ko jàppale di ko soutenir financièrement ak ci côté yu bëri est-ce que tamit xel nanguwul tamit buy jóg di dem ñu jàppale ko ci làmbam déedéet làmb melul noonu làmb du kër goo xam ne loolu neex def làmb mbooloo ñoo lay yóbbu mbooloo lay indi mbooloo lay préparé te ñu lay préparer dañ lay préparer bëgguñu ki nga xam ne seen adversaire la xam ko wala mu gis ko mbër moom ñaari écurie mënuñu ko préparer kenn rek ko mën a préparer mën nañu ko préparer peut-être à l'entraînement mais bésu làmb ji écurie bi mu nekk ñoo ko war indi te it préparation bi tamit écurie bi mu nekk la ko war a defee ñu teg ci seen bët gis am ci moom yaakaar mën a préparer combat bi mais bu fekkee entraîné wul seen kanam ñu koy gis. di xamal ko du ñu mun garanti dara ci préparation bi pour éventuellement lu jëm ci combat bi. parce que buñ dee wax xëy na fa parcelle est-ce que du ñu xalaat relation ak Modou Lo parce que Modou Lo tamit dafa jàpp ne papa la lu mu dugg moom da ko jàppale. na ko waxtaan naa ak papaam mais bu fàttali ñoom ñaar bëri nañ. Modou Lo waa bëri nañ. bëri nañu fàttaliku fàttaliku nga loolu. Modou Lo tamit euh, dafa nekk xale bu baax xale bu yeewu xale boo xam ne dafa muus dama koy wax sa ne ko da ngay bëri may amoo xelum mbër ndax sa xel moo tax ndax xel mi dafa sell ndax Modou bëri na ak moom dëgg la mais bu amee combat te ñu dëkkandoo tey dëkkandoo jàmm ci gën c'est un peu compliqué aussi dëkk ci quartier nit dëkk fa ngeen war a bëree tension ba fay am histoire ba fay am te yooyu moo fa daan am saa yu ñu daan bëri gis nga nam daan mel loolu nag neexul papa ji neexul waa famille ba ndax ñoo dëkkandoo fas la bokk sert mais fële la dëkk mais mënoon na fa dëkk bokk fas am ak loo Lo jàmm te it duñu bokk écurie ndax mënul nekk Fass nekk euh, parcelle xëy na am na ñu ciy dox. comme li ma l'expliqué rek pour ñu retrouver wu mais daal mbër daal ci benn écurie lu mën a nekk mënul nekk ci ñaari écurie su bëree écurie am wala mu dem rek si comme ni ko nit ñi faral di waxee est-ce que nekk avantage mu dem rek parce que dañuy faral di dégg ñuy wax lu mel noonu. xam nga làmb mooy li mu l'expliqué lii ñëw ëllëg kenn xamu ko mën na toog face dem bëri ji ak cité daanu mën na jóge face mu bëri cité daan ko xam nga loolu yëpp tamit du ci écurie écurie face a ngi nii écurie bu mag la mais defet yi ñu ngi tegloo Gris Bordeaux ñaata défaite la am. écurie boobu ñu ñëw ci luy problème mu écurie Fass. non dafa amatul mbër. Fass amatul mbër. non am na mbër mais amul champion. lan moo wutalee mbër ak champion. champion mooy ki nga xam ne euh, li muy def daf koy mën ba ñu ràññee ko ci bu ku mu séqal teraanga wala bés mu jël ko ci yow comme ni ko Mbaye Guèye daan defee ak Moustapha Guèye champion nag yombul du lu ñuy fabriqué ñoom dañu amoon chance rek dans la même famille. kii nekk champion rakk ji nekk champion loolu c'est rare comme Double Less mu nekk champion doom ji nekk champion loolu c'est un Kaaw Mbaye Guèye ak Moustapha Guèye c'est que ñooñu dañu mën bëre nàmp bëre xam bëre juddoo ci màgg ci di ko fowee di ko dundee ba doon champion c'est pas le même cas. am don Mbaye gi dañu am don parce que ñoom ba leen gisee sax xam ne ay mbër la ñu te nag bul xam ne écurie bi tamit ña fa ña fay bëre léegi xam nga Fass non dëkkuñu fa. ah Gris Bordeaux dëkk di. waaw Fass du benn xaw na sori tuuti bu yàgg ba Medina dafa amoon mbëri ñu su jéen booy naar Fall dëkk Fass dañ daan bëri bu yàgg ba ñu kii dëkk Medina kii dëkk Fass dañ daan bëri loolu léegi rek la jeex mais dama ne la c'est-à-dire boo déggee man la dëkkul Fass mooy Fass environnement bi ni mu mel làmb jaa ngi nii koñ yi oto du fa jaar ay fowukaay la dañuy bëri suba ba ngoon ndax espace yi moo tuuti oto xaju fa. donc xale yi dañ ko daan def ay arène dañ daan bëri seen biir di bëri jolaayi yi di bëri séeréer yi di bëri foofu lañ koy tàmmee mais loolu xam nga amatul léegi amatul espace foofu ay bâtiment fa nekk ak ay terrain football loolu moo tax côté bi nga xam ni moo jege géej gi ak dunes yi ak àll bi ëpp ay champion puisque am nañu foo xam ne dinañ exprimer wu tel n'est pas le cas ici Dakar Médina ba Grand Dakar amul benn espace amatul espace. am na fa benn xale bu ñuy gis ñu ne moom mën na nekk relève ëllëg pour écurie muy Serigne Ndiaye 2 yaa ngi koy gis. waa xam nga Fass loolu yàgg na fa am mbir yàgg na fa émerger ñu ni mooy doon champion ëllëg c'est un peu compliqué mooy li mu la wax champion moom euh, don la waaw champion don la ndax li mu réunir dafa bari don la gis nga Modou Lo réyul euh, sutul mbër yi te dafa leen di daan. yow dafa mel ni sax j'ai l'impression da nga faral Fass ou bien tu as des souvenirs de Fass ou. non xanaa gë non pas sentiment mais dañuy gëstu rek xam nga ñun dañuy dundu làmb. écurie du tur ndax liy démb du tey liy tey du ëllëg champion Fass la nekkoon demb mun fa nekk éternellement tey ma nga Géejawaay ginnaaw ëllëg ma nga Parcelles day tourné. kon moo tax mbir ma ñibbi entre Géejawaay ak Pikine nag euh, ak fi nga xam ne mooy. Parcelles li ma la expliqué ñoom dañuy bëre mbapat dañuy entraîner am nañ ay espace foofa dem làmb la loolu amatul fii loolu amul na fii bu yàgg ba mais lool amatul fi avantage boobu la ñu am par rapport ñu dëkk fii ñoom dañu am espace yoo xam ne na leen permettre ñu exprimer wu librement ci entraînement dugg ci géej gi yéeg ci duni entraînement kenn du leen tere dara ndax géej gaa tax loolu amatul fii